mbokki internet ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci coowalu Awa Baba Thiam ak kile di sala Sow ginnaaw audio yi nga xam ne rek fuite woon na ci sala Sow di soxnay Elimane Lam ak Awa Baba Thiam mbir mi nag beneen tournure la jëlaat bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xam ne moom la waa kawtef point com joxe Awa Baba Thiam daal di nay porter plainte xaritam bile di Salla Sow talaata bi weesu ginnaaw ojo yi ñi divulgué ci toile bi te mu jur coow ci fàttali nag def na léegi ay fan ci ginnaaw coow dox na ci diggante Awa Baba Thiam ak Salla Sow Awa Baba Thiam nag bu ñu koy wax rek xel yépp day dem ci soxna si nga xam ne rek moom la Wally Ballago Seck doon wëy booba tey nit ñi sax si lañ ko gën bàyyi xel waaye itam bu ñuy wax Awa Baba Thiam xel day dem ci ki nga xam ne moo doon maye fan yi ñu génn doomam bu jigéen bile di Khadija Tall te ki ñi ko doon may du kenn kudul Seydina Alioune Seck doon frère ci Wally Ballago Seck doomu Thione Seck di le golden boy de la musique sénégalaise ba tax na rek mu nekkoon ab mariage boo xam ne dañu ko célébrer woon à grande pompe ci noone nag coow da mujje juddu gi ginnaaw bi Awa Baba Thiam jëlee xaritam boobu nga xam ne rek def nañu lu ëpp ñaari fukki at plus de vingt ans d'amitié di sala Sow di ami d'enfance sam mu ndeyale ko nag doomam joojule mu doon maye ginnaaw anytime bi bi mu jàllee ba pare nag coow da cee juddu mbir mi nag mi mu mi ngi tàmbalee rek ci ndeyale gi ginnaaw ba ñu gisee ni daal Salla Sow indi ay teraanga yu bëri ba ñu ci tudd sax lu ëpp trente millions ndax rek teral ngir rekk teral ko waaye li ci gën a jaaxal nit ñi mooy polémique bi nga xam ne rek gis nañ ko si ndax nag bi ñu xëyee ginnaaw bi mu ndeyalee sala Sow ndekete ki lee di Awa Baba Thiam dafa jox cër bi beneen xaritam bu tudd Khady Kébé di doom ci Ndiouga kebe ba tax na nag yëf yi indi jiixi jaaxa ci loole nag mu xamal ku ne ci ñoom rekk kenn ki mooy ñëw ci mariage bi keneen ki mooy teew ci any time bi ba waral rekk ñu bëri ne daal li mel ay dóor la ndax nag ginnaaw bi sala Sow indee teraangam ak ànd ceeg nag gàngooram dafa gedd rekk daal di ñibbi coow li nag fëla juddoo ba tax na moom mi lee Sow mu am loolu lu ko nakari ba mu yóndee ay audio xaritam boobule di Awa Baba Thiam ci noonee nag la xëy rek gis ay audio audio ju circulé ci réseaux sociaux yi kan moo génne audio yi kenn xamu kenn xamu ko muy laaj bi nga xam ne rek moo sampandi boobu ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi nga xam ne moom la Tange Tandian di animateur VIP people daal di joxe kile di Awa Baba Thiam moo yóndee yooyu la ojo benn influenceur sinapeur boobule sinapeur di influenceur daal di jël audio yi tam rek rek daa di koy yónde ab benn waay bu yor site ca extérieur international ba tax na rek yëf yi rek daa di tàmbale tas mu li ni mel nag dem na rek ba ñu bëri daal di laaj ndax li awa baaba caam yëf yi du këppaat ci kawam li ni mel sax moom la ñu bëri di laaj ba ku ci mel ni sax Tange Tandian moom it lool la laaj nee na ndax li ni mel daal du këppwaat ci Awa Baba Thiam bi nga xam ne rek moo daal di porter plainte kile di Salla Sow soxnay Elimane lama ñu wax ci Ndella Madior Diouf moom it coow moo juddu ci këram boobule di kër yërmande nga xam ne rek day fat ay xale di leen toppatoo di leen dundal ak di def ci ñoom yar bu baax bi démb ba tey rek ñu ngay gis gis benn annonce ci ay wala ay compte TikTok muy wax ni daal daa am kenn ci nunu yi ku kidnappé doomam bu jigéen bokkoon ci xale yi mu yi mu fat foofule di kër yërmande ki ko def nag nee na nag du kenn rekk kudul nunu bile di sukkay na fay ànd ceek rek ak complice am boobule di faatu Binta Ba bu ñu sukkandikoo nag ci Ndella Madior Diouf bébé Mariam Faye Sall la daa di sàcc nunu bile di Soukeyna Faye ak complice bile di faatu Binta ñoo def jëf joojule ci bésub 7 septembre bi ñu ne ca këram boobule di orphelinat kër yërmande ci fàttali nag ay weer ngi ni daa daadi woon rek annoncé moom Ndella Madior Diouf benn décès ci bébé yi nga xam ne rek foofu la ñu ne te kooku tuddoon na bébé ka nekkoon itam ci orphelinat boobu lay nga xam ne rek da ko tubbe kër yërmande Alioune Mbaye Ndeex en deuil ginnaaw ñaari weera gi mu ñàkkee soxnam Sile di faatu Barada beneen tiis ak nakar moo daal di dal ci kawam moom le vocal du Setsima groupe sërëm bile di Fatou mbay ak doomam gile la ñàkk ci même jour bi ci benn bés bi ñoom ñaar la ñàkk kile di Fatou mbay nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom la ñuy joxe mu ngi génnee àdduna rek foofule ca Tiwaawoon doomam bile nag file ci Dakar la génne àdduna da na daal mu nekk rek lu metti xibaar bu ci moom mile di Aline Mbaye Mbay Ndeer nga xam ne rek yàggul dara la ñàkk soxnam Sile di Fatou Barada rédaction bu Dakar Media TV mu ngi koy jaale di ko jaale ay mbokkam yépp te di ko ñaanal rek yàlla xari ko ajjana te suufa sedd rek ci kawama fana ngi nii rek ñu gis ay vidéo du circuler ci réseaux sociaux yi jëm rek ci yenn célébrité yi ni ki mel Zeyna Ndour di doom ci Viviane Chidid duur la reine du Jolof Mband di naan rek ana lan lay waajal ba ku ci ne rek di ci yëy yàbbi di ci àddu ñu naan ab inauguration boutique la ñeneen ña ca des rekk di naan ndax du mariage wala business bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xam ne rekk moom la jot du lenn rekk lu dul benn clip boo xam ne rek ñu nga koy waajal boo xam ne rek mu bu nar génn la diggante moom Zeyna Ndour yaayam Viviane ak frère am bile di Philippe Ndour ci fàttali rek gisoon nañ sax Pape Cheikh Diallo ak Tické Lawbe ñi ki mel ni itam rek ñoom pendoo def rek ay vidéo di circuler ci réseaux sociaux yi di naan rek lan moo xew fu mu ne nii nag kumpa gi daal dañ na ndax nag du lenn rek bu dul benn klip boo xam ne rek dinañu ko gis lu yàggul dara ci plateforme yépp mbokk yi li nekkoon. kon lii moo nekkoon xibaar bu gën a fës ñu ngi leen di jox daj dig daje ci yeneen i xibaar file ci dakaar Media TV.